tey ñu ngi fas yéene continuer à Laxdariyu bi naan la doon jàngale la bokk na ci sartaay julli yi mooy nga laab ci sobe sa yére bi wala place bi ngay jullee wala bokk sa yaram bi léegi nag masalaam tey mi li muy jàngale mooy julli dafa jot fekk yére bi nga sol tabaarakallaahu laabut amo benen yere wala amo ndox mo ko raxase yére bii rek nga sol julli jotna na leer na leen bala nga ñibi sa kër bay xam benen yere waxtu yi dana jeex wala boobu amoo sax ndox mo ko raxase ndax su boba da ngay tok ba ñibi sa kër wala da ngay julli noonu and ak sobe lolou nu neen tay fofu lay dars bi di commencer na buñ paré la sa temps bi may rek ñu lo serigne mi neena na fofu ngay jël wa man wamanta ndajj sa koo xam ne sobewu na saw bu wu yëreem wala malaanam wala muy jib taxamul saw ban yére xayruwu budul moom wala muy jib taxamul maa am ndox yax siluwu boo xam ne dana ko raxasee bii sa sobe sa awlam yëkkun wala nekkul xenduwu fa moom maa yére boo xam ne yan bésu dana ko sol ataa yax siluwu ba mu raxas sobe sa wa xaafa tamu ragal xurujal waxtu génn waxtu wa kon salaana julli bi najasati ci sobe nga ne ko pourquoi mu ne xanaa xamu ne wala yeyilu du dagan taqiru salati yexe julli li adami taad ngir ñàkk wa man faana ku def saari que ta te mooy nga julli ngir na xamne ne qara asa moy la rabbu borom kon bu fekkante ne sa yere bi nga sol dafa tak sobe deng legi xamoo benen yere bo sol julle ko han wala bo xamoo benen yere bo sol bara sobe si wala ndox si bopam sax mo nga amul far taragal nga ne bala nga dem sa keur bay changé di yere bo waxtu bi dana jeex kon jullit ànd ak sobe sa yere bi bu taqee sobe amoo benen yere bo sol julle ko yere bu laaw wala amoo ndox moo raxasee yére bi pour julli ah wala boog am nga ndox moo ko raxasee waaye tey boo ko suñu yoon di fóot yére bi amoo beneen yére boo sol pour mën a raxas sobe te ragal nga ne bala ngaa dem bay am yére waxtu bi dana jeex kon salaa bi najaasati kon nga julli ànd ak sobe waaw ko déet xanaa kay da baxi kay ba ma am yére bu laab soo ko mën a julli mu ne la déedéet daganul nga yéex a julli ngir ñàkk laab laab kese kese du dagan du tax ñu ne la nga yéex julli mu ne ku def loolu na xam ne na yàlla kon heure bu julli jotee fekk la marche yàlla dogal laa wax nag sobe taqala foofu xamoo beneen yére boo sol jullee ko wala xamoo ndox moo raxasee sa sobe bi wala am nga ndox de waaye beneen yére boo sol nga am kon su boba jullit nga ànd ak sobe bul wax damay xar bo wacc li la la chariat wax kon yow mi nek ci tool di bay bu ko sobe takki non la bu la leer na bala nga nit ci bay fi di am yere bu la boy sol waxtu wi dana dal kon su boba nga julli ànd ak sobe du dagan mukk nga yéex julli ngir ñàkk laab ku ko def moy na yàlla bobu leer na waaw jàngaloon la it la ko xamante manam nit buy julli pour julle bax da war mu suturaal xawraam léegi nag yow li nga sol suturaal al sawr masalan tay da ngaa soloon benn kilo rek nga rek xalal ma dem fi te jow bi nga demee xam lu la fa gar ba waxtu julli fek la mo leer na ne bala nga ñib ci bay sol yele bu la mën a waxtu julli bi dana jeex ah kon su boba julil ak ñàkk sutura daaro manam julil ak sa kiloon bob même bu doon digene musul ab tiset ne xaaral ba dem fi te ñew damay dem rek ñew duma fa yak far bam deme am lu ko fa gar ba waxtu julli jot fek ko fa mu leer ko ne ñi bi kërëm ragal na ne dana am embouteillage wala dara waxtu bi dana jeex kon su boba batay na julli ak tisetam boobu waaye waxuma nga tay ko li wax lu leer nañ ñi la lay waxuma nga tay ko yow kilo bi nga sol di ko xëy ji mars leer na la bala ngaa wàcc guddi dana jot ta xam nga ne kilote di julli nga yobbu ko han kon bu julli jotay nga julli ala so julli baaxul ndax ya ko tay su re si jigéen lay it ko moko tay kon bala ñu wax ne la julli ala ko moy day fekk ne da ngaa yaakaaroon ne bala julli jot dana fekk nga ñew sa kër wala da nga am yere bo meuna sol julli ko far nag ba nga demé am lu la fa gar bam tam leral ne bala nga ñibi sa kër ba am yéré bo sol waxtu bi dana jeex kon ñu ne la julli ak sa yéré bo li la wax waye bu ya ko tay sol yéré bu bu mën de julli du nga may nga julli da ngay yéxa julli ba paré ta bo taddu la tare am bakkar pour muy leer benen bi su fekke da nga raflé xam nga amna masal yu bari yo xamne force nga xol nako firé jamo moy bu dé da nga raflé ba mo lu mëna sutural sa wala bu njëkk daan am ndax ndongo daara yu njëkk yi danaa gis xam ne benn yére la daan am yére bi xar fu nekk bala kaa fóot guddi la koy fóot weer ko balaa bëri set mu wax mu mën kaa sol waaw yooyu ñàkk yére xeggoon na fa waaye léegi boo waxee naan ko xamul nangam ko xamul nangam léegi-léegi boo ñàkkoon yére soo génnee ti euh, sa dugg kër jàmm na yére bi ma sol laa bëgg léegi ñu may la ko waaw a nit jënd yére bu baax jox la ko waaw yooyu yëpp mi si nappaat doo joxe dara Boubacar laay wax joxewu dara dégg nga nah, kon ñoom booba seen yére da yére dafa eh, da eh, dafa jafe woon ci ñoom léegi nag boo jëlee loolu nag nga ne koo xam ne dafa rafle xamul lu mu jullee su boobaa xale jamono yi buñ koy dégg dañ naan loolu loolu moom yëfi dof yi mooy la nit nan lay ñàkk yére yu jullee na moo kon waaye boo ko firee ni ma ko la da ngaa sol yeri bo xam ne mënta julli nga ne xaaral ma dem sama kër maam wala sama kër nijaay wala ma dem sama kër xarit bi te far da nga demé julli fekk la fa xamo yéré go julli waaw li nga sol sutra wala lér na la bala ñibi da na fekk waxtu julli jeex kon ñu la julli al ak yëre boobu ko lañ ko may way kiko tay def ko ko mom mooy ko kon masala mu lay jangale mo ra sëriñ bi ne bama lam yéjju ko xamul maa loo xam ne yasuru dana suturaal bii ci awru tu hawram li nga sol sutra sawra kon salaa na julli on ci cig rafle kon lam sol noonu tabaarakallaa na ko jullee waxoon naa la ne la sooy julli bokk lañ sartaay julli mooy da ngay jublu xibla yow nag dangaa mooy xibla bi bi euh, bi ngay julli masalan yaakaaroon nga ne nii mooy xibla bi nga julli ba pare waaw xam nga bu dee yaa ko tay xam ne nii doo xibla bi nga fay julli moom sa julli gi baaxul loolu moom lu leer waaye nag da ngaa nga ñëw Dakar xam ne fukki pengo juróoma fi am ñu ne ak seen pengo bépp kër gi ak kër gi sax bu ñu julli dañ bokk fu ñu jublu waaw léegi nag yow bi nga ñëwee nga gëlëm nag yaakaar ne fi mooy penku bi nga julli ba pare ñu ne la fi nga jublu nii du penku bi waaw ah, penku baa ngi nii bëgg nañ nga baamuwaat julli su la fekkoon ci biir julli gi ñu ne la yow sëñ bi fi nga jublu nii du penku bi bul dagg julli gi de da ngay orienté wu rek jublu penku rek egg la julli kon ñaari rakkaa yi nga amoon fii baax bul dagg julli gi comme yaa ngi julli gi sël mënoo da ngay orienté wu rek jublu penku egg li ni des baax waaye su fekkoon nga julli ba pare ñu xamal leen la fi mooy penku bi kon su boobaa bëgg nañ nga baamu xam bi kon masal moom lay dugg ni dégg serigne bi neena man axtaa ku al qibla al qibla ara na baamu julli fi waxtu sa waxto su re da ngaa qibla da ngay baamu julli bu re waxto ji yow loolu mana dal kuy tukki ku nek yaatu na dégg legi na mu ne la ko kullu di bepp baamu fi waxtu sa waxto walay do sa bo déggee ñu na la rek sa waxto walay do ta jangalo na la waxtu jangalo na la muxtar jangolo na la daruri su dee nak da nga bëgg xam wax da ngay aller foofu nga nga xam ko waaw kon sooy dégg ñu naa la muxtar rek tay bu doon tusubaar nga julli won joom jublu ni du pen nga dem ba heure bi nga xam ne ay 19 h mi nga waja jox ñu la fi nga jublu won du pen fi moy pen kon bëgg nañ nga baama tusubaar ki fii jant bi sow bëgg nañ nga baama bu tak sa la encore fii jant bi sow nga baama ko ndax waxtu buñ ko waxee moy li ñu tuddé muxtar ak daruri ñaar yépp bu muxtar jeexé té dëru yu jeexul nga baamu ci dëru yu bu ñaari jàllee nag moom garaaw jërul baamu tay bu doon tusubaar nga doon julli juum jublu ni nga dem ba timis nga am ak gaay yi di julli nga gis ñu jubli nga yeen fuy penku ñu ne fi nga ne xaj man de pourtant bi may julli tabsan ni la jublu fekk ci mi jonne sa tusubaar nga sa tabsan ni yeb baamu jërul baamuwaat ah. comme jant bi sonn rek baamu waaw nga kon bala la wax ne la baamu day fekk mu nekk sa waxto ta baamu bo gi ngëneel la soko ko ñàkkoon a defee sa julli gi baax waaw boo ko def tariw sa julli gi baax comme yow da nga japp ba ne fi moy qibla mu leer sa bop yow loolu nga japp yow jublu ni julli ba pare ñu la fi du penku bi ah man ba ma baamaate julli boobu mënu ma tariwul sa julli gi baax de waaw tariw na sa julli gi baax kon dañu bëgg nga ma rek way du force waaw du obligatoire den mu ne wokkul maa lépp la nga ne toxaaru des nga ba mu minu ci mom asalaatu julli fil waxtu sa waxtu walay doon bépp julli boo dégg ñu naan la baamu ko sa waxtu walay doon mën na falaa toiru duñ baamu minu si moom faa itam julli gu faat wan naa ak julli naafi julli gu weesu comme ni la ko waxee tàkkusaan dem nga ba jant bi weesu na julli naafi moom it kenn du ko baamu kon julli gu ne ci waxtu kooka yeen moom la ñuy baamu waaye julli gu faat ak julli naafi la ñoom moom kenn du leen baamu kon daal tabaarakalaa tey loolu moo doon darsu daf ñoo wax ne koo xam ne yëreem dafa sobe amoo beneen yére bu boobu kese wala amoo ndox moo ko raxasee wala xam ndox bi waaye amoo beneen yére boo sol te ragal nga ne bala ngaa dem sa kër bay am beneen yére waxtu yu dana jeex nee na jullil ci raf euh, jullil ànd ak sobe boobu du dagal nga yéex a julli mukk ngir ñàkk laab loola dagoon ku ko def may na yàlla ku amul lu mu suturaale awraam na julli ngir rafle ragal na ne balaa am lu mën a suturaale waxtu yu dana jeex kon na julli ci rafle boobu baaxam ku doon julli mooy xibla muy penku ñun la baamul julli ga sa waxtu wa bépp bu baamu guñ la wax nag nee na ngëneel la kon julli gu baamu julli gu faat nu julli gu jàll kenn du ko baamu julli naafila kenn du ko baamu kon lii laa jàng li ñoon wax lu muy bëri bëri lii kese la bëggoon a tënk ma bamtu la firi bi ñu dem ba suuf sëriñ bi nee na wamanta naj jasa ku sobeewu na soo bu yëreem wala muy jidd xamul taw ban yëre xayruhu burul moom wala muy jidd wala xamul maa am ndox yàq si lu boo xam ne dana ko raxase bii sa sobe sax awlam yakunu wala neku hendu fa mom ma yere bo xamna yalbu su dana ko sol atta yaxsilu bam mu raxas sobe sax wa qafa tamu ragal waqtu genn génn waxtu wax kon salaana julli bin najasati andak sobem wala yeenu du dagan julli li adami taharati ngir waman faala ko def zalika lolu na xamne fa qala asa moyna rabbu rabu borom masalam sobe jeex mu ne la ba ma la muy jur ko xamul maa loo xam ne yasuru dana suturaalee bii ci moom awratu awraam salaana julli wala yaa nan cig rafle masalaam ñàkk a am loo suturaalee sa awra jeex mu ne la man axtaaku mooy alqibla qibla aare na baamu julli ko fi waxtu sa waxtu ku doon julli mooy xibla mu ne la baamu julli ko sa waxtu mu ne la wa kulli aare di bépp ak baam fi waxtu sa waxtu walay doon bépp julli ko dégg ñaa la baamu de sa waxtu walay doon te fay moom baamu boo fa di la doon ngëri lay doon du obligatoire wa kullu maa lépp la nga xam ne ko baamu ñu ne si ma asalaatu julli fil waxtu sa waxtu wala da mu bamtu mu ne la falaa tuwaalu duñ baamu ñu ne si moom faayitu du julli gu faat muy julli gu weesu wa naafila ak julli naafila kon foofu doy na darsu ba suba incha allah.